nga leen li bandu jaarale ko ci rajo Gogo xaat yee ci anam gën a baax waaju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 合一。samay jarbaat ak suñu xarit yi nekk ci kër yi di déglu léegi nag dañuy laal juróom-ñaari araf yu jëkk yi ci abajad bi topp ci arafu h te tudd leen bañ leen a woy nijaay Asan yan jumtukaay la soxla ku ci nekk ci yéen di nga soxla sa téere kër ubbi leen xët juróom-ñett fi am arafi ndaw yi ci wolof del fa xàmmekaay bu mel ni daggatu kayit wala bant bu ndaw ngir mën koo gaaw ubbi waat su ngeen ko soxlaa Marie ubbi nga waaw maa ngi ci xat ndax ubbi nga xët juróom-ñett waaw maa ngi ci xët juróom-ñett yaakaar naa ne sunu xat yi ñuy déglu ñoom diboor ca jaxaaw maam anta ca gaawaan umb ca kirire faatu ca ndimb korki suwaadu ca dond na ca sugeer ak seen moroom yeneen yi ñoom it ubbi nañ xët juróom-ñett léegi nag teg leen seen baaraam ci suufu arafu jëkk wi janoo ak biddiw bi samay jarbaat ak suñu xal yu ñu déglu ndax teg ngeen bu baax seen baaraam ci suufu araf wi janoo ak biddiw bi waaw suñu baaraam a ngi teg ci suufu arafu jëkk wi samay jarbaat ak suñu xale yi ñuy déglu nanu laalandoo te tuddandoo juróom-ñaari araf yi jëkk ci abajadd bi te topp ci hë te bañ leen a woy aywa ma wàññi ba ñett benn ñaar ñett i jë kë lë më nu baamtuwaat ko su ma waññee ba ñett benn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 aywa ña na hë ña kë na i nu defaat ña na hë ña kë na i amuleen moroom xale yi gis naa ne teg ngeen bu baax seen baaraam ci suufu araf yi yaakaar naa ni seen xale yi itam def nañu ko waaw kay samay jarbaat ak suñu xale yi ñuy déglu léegi nag dañuy tàggatu ci laal ay araf tudd leen bu gaaw ngir tàmbali dañu liggéey ci ñetti araf yi topp ci ñë nijaay Assane naka la ñuy jàngee ni ñuy tuddee araf yi bu gaaw xët juróom-ñett ci téere kër ngeen di jëfandikoo mooy xët wi ngeen ubbi woon ci yëngatu bi weesu ubbi naa sama téere ci xët juróom-ñett nijaay man tamit ubbi naa xët wi yaakaar naa ne seen xar yi itam ubbi nu seen téere ci xët wi léegi nag dañuy tàggatu ci laal te tudd ñetti araf yi topp ci ñë samay jarbaat ak suñu xarit yi ñu déglu teg leen seen baaraam ci suuf araf yi ci topp ci ñë ndax yéen ñëpp teg ngeen seen baaraam ci suuf araf yi topp ci ñë waaw teg leen sunu baaraam ci suufu araf yi topp ci ñë araf yi topp ci ñë mooy arafu ŋë yéen ñëpp wan araf ngeen joxoñ ŋë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 samay jarbaat ak suñu xarit yi ñuy déglu léegi yéene laal araf wu nekk te wax nu mu tudd maa ngi wàññi ba ñett benn ñaar ñett nga o jarbaat baamtu leen nga o léegi nag nanu bàyyi sunu xarit yi ñuy déglu ñu laal araf wu nekk te tudd ko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 aywa yéen ñëpp laal leen ŋa te jàng ko ci kaw ŋa waaw leen kumba waaw leen góor yéen ñëpp laal ngeen ŋa jàng ngeen ko yëkkatiwaat leen seen baaraam aywa yéen ñëpp laal leen o te jàng ko ci kaw o waaw leen góor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 damay wàññi dogi baat yi ci sama xel wàññi lee nit ci samay baaraam su ma noppee wax dogibaat yi benn benn di tàccuwaale saa su ma waxee ab dogubaat baat su ma ci noppee ma wax ci kaw ñaata dogibaat laa am waaw kumba sama jarbaat léegi nag yéen ak seen xarit yi dangeen war a baamtu baat bi may wax aywa yéen ñëpp baamtu leen xarala. xarala baamtuwaat leen ko. xarala badu sama jarbaat léegi nag da ngeen di fàttali suñuy xarit yi naka ngeen di wàññi dogi baat di nekk ci xarala nan ngay def ba wàññi dogi baat di nekk ci xarala. waaw damay wàññi dogi baat yi sama xel wàññi leen yi ci samay baaraam. su ma noppee wax dogi baat yi benn benn di tàccuwaale saa su ma waxee ab dogu baat xa ra la su ma ci noppee ma wax ci kaw ñaata dogi baat laa am ñetti dogi baat aa gis ngeen dagg ay baat wàññi dogi yi jafewul léegi nag nanu bàyyi sunu xel yi ñuy déglu ñu waññi dogi baat yi nekk ci baat bi ma leen di jox suñuy xarit yi déglu baamtu leen saxaar suñuy xarit yi ñu déglu waññi leen ñaata dogi baat ñoo nekk ci saxaar yéen suñuy xarit yi wax leen nu ñaata baat ngeen waññi ci saxaar waaw saxaar ñaari dogi baat la am amu leen moroom samay jarbaat fàttali leen sunu xarit yi naka lañuy ñu wàññi baat yi nekk ci saxaar. saxaar ñaari dogi baat amu leen moroom léegi nag sunuy xarit yi déglu rajo bi ñooy wàññi dogi baat yi nekk ci bibarong sunuy xarit yi. wax leen nu ñaata dogi baat ngeen wàññi ci biberon samay jarbaat ñaata dogi baat a nekk ci biberon biberon ñetti dogi baat tigi biberon ñetti dogi baat waaw kumba mari waaw góor badu léegi nag sunuy xat yi ñuy déglu dagg leen te wàññi dogi yi nekk ci timis suñuy xarit yi wax leen lu ñaata dog baat ngeen woññi ci timis samay jarbaat ñaata dogi baat a nekk ci timis timis ñaari dogi baat timis ñaari dogi la am waaw kumba mari waaw góor badu léegi nag suñuy xarit yi ñuy déglu dagg leen te wàññi dogi baat yi nekk ci portaabal léegi nag suñuy xarit yi ñu déglu wax leen nu ñaata dogi baat ngeen yëg ci portaabal samay jarbaat ñaata dogi baat a nekk ci portaabal portaabal ñetti dogi baat jërë ngeen jëf yee ñépp dagg ngeen baat bi bu baax te woññi ngeen ni mu ware li mu dogi baat yi nekk ci baat yi ngeen dégg mari ndax mën nga noo fàttali baat bi nu jàngoon ci émission bi weesu seen xat yi ñu déglu ñoom mat lañ ca jifeer maam xëri ca nasru hayda ca sanc ali fatim basiiru ca daaru muxti aana ca ndar maamudu ca gamaaji saare ak yenn xale yi ci gox yi ak gox goxaan yi ñoom tamit war na nu jéem baatu tari lanu jàngoon waaw kumba mari badu jéemal a defar kàddu ak baatu tari seen xel yi ñu déglu ñoom it war nañu jéem sëriñ nee na ku mokkal na ñëw tari amuleen moroom jàmbaar ngeen xale yi ci suñu lesengu tey dinañu jàng baat bu bees baat bi ñuy jàng tey mooy dibéer samay jarbaat baamtu leen ko. dibeer sunuy xarit ñuy déglu baamtu leen baat bi. waaw leen kumba waaw leen góor dibeer mooy dimaas samay jarbaat wax leen lan la dibeer di tekki. nijaay dibeer mooy dimaas sunuy xarit yi ñuy déglu yéen tamit wax leen lu dibeer di tekki. amuleen moroom léegi nag damay jëfandikoo baat bi ci ak kàddu déglu leen dibeer mooy bés bi topp ci samedi samay jarbaat baamtu leen kàddu gi dibeer mooy bés bi topp ci samedi waaw leen góor waaw leen kumba léegi damay jëfandikoo baat bi ci geneen kàddu dibeer am na làmb ju mag sunuy xarit yi ñu déglu baamtu leen kàddu gi amuleen moroom mari léegi dama lay jox ab laaj seen xel yi ñuy déglu dañu war a teewlu bu baax te xalaat ci tontu li aywa ndax dibeer da ngeen dem école dibeer duñu dem école bésu noppalu la waaw kumba mari badu léegi yaay tontu ci sama laaj bi seen xel yi ñuy déglu ñoom it dañu war a teewlu bu baax te xalaat ci tontu li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 damay toog ci kër gi di jàng waaw kumba mari léegi badu ay ca jéemal defar kàddu gu am baatu dibeer seen xarit yi ñuy déglu ñoom war nañu jéem dibeer ci ngoon damay waaj ngir suma xëyee jàngi amuleen moroom samay jarbaat sunuy xarit yi ñuy déglu ban baat lañu jàng tey dibeer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 bi sabar yi jollee rek ñu daldi gis góor ñi jigéen ñi ak xale yi ñu solu ba jekk jóge fu nekk ngir fekke po mi ci waxtu woowu simbkat yi ak ñuy àndal ñu ngi leen di nëbb ci mbaar mu defare ak ay sër bi simb si tàmbalee rekk gaynde gu mag gi daldi sab boo ko gisee mu ngi rëdd kanam gi ay rëdd yu xonq rax ci yu ñuul yu mboq ak ay mustaas kanam gaa ngi raglu ba ku ko gis rekk dangay daw ay jabaram nag ñu ngi ko wër ay góor lañu kat yu sol yére jigéen di reetaanloo nit ñi ak seeni taybaas baas ak sër bépp seetaankat war na jënd fas bu bañee gaynde gi jàpp ko fecc ko bu mënula fecc gaynde gi daf koy toroxal di ko sotti ndox di ko bërëng ci suuf léeg-léeg yaramu gaynde gi dafay tàng ba fokk ñu jat ko ngir mu am jàmm su ko defee gaynde gi fecc jekki-jekki daw song nit ñi ngir wut ku mu jàpp ñu tasaaroo daw bu timis jotee po mi daal di jeex ñu gunge gaynde gi ak wayu neex xale yi yéen suñuy xar yi déglu njot naa ni teewlu ngeen bu baax njàngum nettali bi léegi nag damay jublu ci laaj yi Marie nettali bi ci lan lay wax seen xarit yi ñuy déglu ñoom it war nañu jéem tontu ci laaj bi nijaay nettali bi ci simb gaynde lay wax xaley gox bi ñoo ko amal waaw Kumba Mari Badu wax nu jëm mi gën a fës ci nettali bi seen xat yi ñuy déglu ñoom it war nañu jéem a tontu ci laaj bi nijaay jëmm yi gën a fës ci nettali bi góor ñi la jigéen ñi xale yi gaynde gu góor gi ak yu jigéen ñi waaw góor Badu xale yi yéen daal jàmbaar ngeen waaw kumba yawit mari léegi nag tontul ci laaj bii kañ lañuy tëgg simbsi seen xale yi ñu déglu ñoom it war nañu jéem a tontu ci laaj bi dibeer ci ngoon lañuy tëgg simbsi waaw kumba mari xale yi yéen daal jàmbaar ngeen waaw góor yawit badu léegi nag tontul ci laaj yi topp kañ la sëmb sii door kañ lay tas seen xarit yi ñuy déglu ñoom it war nañu jéem a tontu ci laaj yi simb si tàkkusaan lay door tas timis waaw góor badu xale yi yéen daal jàmbaar ngeen xale yi yéen sunuy xarit yi ñuy déglu yegg si nañu ci njeexte liggéey bi ñu waroon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 ndax jàpp ngeen ni ma wax xale yi. waaw nijaay xët fukk ak juróom benn ci téere këru sëy yi ak xët fukk ak juróom benn ci téere waajur yi bu émission bi jeexee mën ngeen def ak seen doom yënguto bi ñuy woowee wëndeelum baat yi ngir mu am yeneen baat yu mu xam seen tekki ngir it mu mën a jëfandikoo ay tegtal ak mu mën a melool ci loolu di soxla yëf yu mel ni ay meññeef ay lujum ay jumtukaayu njàng yu waañ ak ñoom seen toppal yoon wii bi ci njëkk waxal dañuy jàng naka lañuy defe yëngute bi tudd wëndeelum baat yi ñaareel bi waxal ndax mën nga tudd juróomi lujum meññeef jumtukaayu waañ yu école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 ามขา